asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziyaara ñu du yéen ñëpp yéen a ngi dégg wolof alhamdulilah alhamdulilah ñu dégg am na ñu déggul fii ah kon alhamdulilah ñun seeni doom lañ yoo xam ne mosoon nañ fi ñëw ci année yu yàgg defoon fi waxtaan année bu nekk dañuy jóge Dakar di def tournée ci biir Sédhiou dem Boubu Domb dem Ziguinchor di def ay waxtaan ci jàkka yi li ñu doon gënal nag mooy chaque jour ñuy daje ak ndaw yi ndax bu ngeen xoolee jàkka bi nu mu toll lu fi jullee motul fukki ndaw bi ñuy ñëw ñu ngi romb stade bi mu ngi fees del del del del jàkka bi amul benn xale bu góor loolu moo waral sunu tournée pour ñuy jéem a dajeeg sunu moroomu ndaw yi pour di fàttalante ak ñoom pour ñu xamal leen ne yàlla tabaraka wa taala li tax mu bind doomu aadama yi indi leen ci kaw suuf mooy al ibada wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yabudun tey bu fekkente ne dañoo nekk ay jullit mais jullit yépp di daw jàkka yi jullit yépp bàyyi diine bi kan mooy mooy dundal suuf si te yàlla tabaraka wa taala dafa waxoon li tax mu wàcc jullit ci kaw suuf mooy inni jaa'ilun fil ard xalifa doomu aadama la yàlla wàcc ci kaw suuf pour mu nekk xalifa ci kaw suuf si pour ñu jaamu yàlla tabaraka wa taala tey seytaane ñëw na këf na ndaw yi këf jullit yi du mooyu leen ak seen diine léegi da ngay gis jullit boo xamante ne day dund nii dund dund dund rek après bu dee rek ñu ne ñu ne jullit dee na ñu daal di jël yóbbu ci morgue bi ñu daal di del suul daal di yóbbu ñëw ñaan ñu yaakaar ne jullit la fekk ci yàlla du dara loolu moo tax ñuy wër di def zikra ndax yàlla nee na fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin dee leen fàttalante ndax fàttali day jëriñ jullit tey ci biir Sénégal foo dem jàkka boo dem nga julli ci weeru koor la jumaa bi di fees wala tabaski wala korite wala jumaa amma yeneen yeneen julli yépp doo gis julli ji doo leen gis julli suba doo leen gis julli tisbaar doo leen gis julli taksaan doo leen gis timis doo leen gis gee lu néew lu néew ci jullit ñoom ñooy bàyyeekoo seen kër lu néew ci ay jullit ñooy bàyyi ko seen kër suñ déggee nodd ñoo julli loolu moo tax comme yàlla def na ñun ñu nekk ay ndaw ñuy wër ci biir dëkk yi di fàttalante ak jullit yi pour ñu bàyyi xel loolu pour ñu bàyyi xel seen diine pour ñu bàyyi xel lu xam ne njaboot gi dañoo war a ñëw ci jàkka ji tey su fekkoon ne kenn ci jullit yi su fekkoon ne kenn ci jullit yi dafa suy ñëw jàkk day indaale ay doomam jullit yëpp bu ñëw jàkk ñu indaale seen doom tey bu ñu waxoon ku indi doom sa jàkk sa doom dina am terrain dina am kër kër bu ñu tabax ba mu rafet yow di nga am kër sa doom bi dina am kër ñëpp dinañ indi seen doom mais lan moo tax jullit yi ñuy ñëw jullit ñu bàyyi ñu bàyyi xale yi ci kër yi wala xale yi sax xamuñu ne ñoom bokk ñu ne programme wuñu seen bopp ne ci jàkk bi lañ bokk te suba bu ñu gisul mag yi ñan ñooy néew jàkk bi suba bu mag yi nekkatul fii ci si dëkk bi ñan ñooy ñëw ci jàkk bi xale yi ñoom ñoo fi war a ñëw kon xale yi dañ leen war a jàppale gi ñu former leen pour ñu tàmm yoon wi pour ñu tàmm jàkk pour ëllëg su mag yi ñëwatulee ci jàkk bi kenn gisatul mag yi ci dëkk bi ñu mun ñëw ñu occupé jàkk bi ñu mun ñëw ñu mun jaamu yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam aaya alquran bi bu mu wàccee ci moom ya ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran aaya bi bu mu wàccee dafa am sahaaba bu jooy ci kanamu yonente bi saa sallam aaya boobu bu mu wàccee aaya baa ngi suratu tahrim aaya bi mu ngi suratu tahrim bi aaya bi wàccee sahaaba bi dafa jooy ñetti fan muy jooy ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk këram muy jooy suñ ko laajee lan ngay jooy mu bañ a wax ñu dem ñu wax ko yonent bi ñu ne ko diw bu mu jógee fii démb léegi mu ngi jooy yonent bi ne dem leen ngeen woo ko ñu ñëw ñu ne ko kaay wuy yonent bi mu ñëw mu ne yonent bi ne ko lan ngay jooy mu ne ko ajastu an nafsi wa kulliftu an ahli mu ne man sama bopp mënumaa dugg aljanna maa ngi góorgóorlu aljanna diis na sama kaw yàlla mu ne sama jaboot encore nañ dugg aljanna mu ne kon loolu man du ma dugg parce que man sama bopp rek mënumaa yóbbu sama bopp léegi yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw mu ne loolu laay jooy lan la ko yonent bi wax wa hasbuka an taamuruhum bima taamuru bihi nafsak doy na ci yow rek yow li nga bëgg ci lu baax nga koy def nga fexe sa doom muy def loolu yow yaa ngi julli fexeel sa doom mu julli yaa ngi woor fexeel sa doom mu woor yaa ngi def lu baax fexeel sa doom mu def loolu yaa ngi bàyyi lu bon fexeel sa doom bu mu def lu bon loolu la ko yonent bi wax kon tey jii fii nu toll ci kaw suuf dina yellu ci ñun dina jaadu ñu xam ne ndaw yi ñoom ñooy mujjee diine bi ëllëg ñu jàngal leen diine bi surtout nag tey di nga gis su nit faatoo misaal laay joxe benn nit ku dee nga gis ñuy seet quartier bi kan moo koy sang ñuy seet kan moo koy sang kan moo koy sang du ñu am ku ko sang surtout nag mu nekk jigéen dañuy wëri dañuy wëri ci biir dëkk yi ñu ne kan moo kan mooy sang kooku sax jàmm la waaye tey bu ñu doon wàcc alxuraan fii ci jàkka bi rek ñuy wàcc alxuraan da ngay gis ñuy wëri kan mooy jàng alxuraan dem leen ngeen wëri kan mooy jàng ñan ñoo mën a jàng ñuy wax ci rajo bi ñëw leen ñëw leen dañuy jàng alxuraan bi ñëw leen maanaa loolu tey musiba bu rëy la boo xam ne dafa dugg ci lislaam te xam ngeen ne ndaw yi ñoom ñooy mujjee jàkka yi ñoom ñooy mujjee jaamu yàlla bi moo tax yontu yàlla sallallahu alayhi wa sallam moom bi ko yàlla yónnee ci ndaw yi la tàmbalee xale yi la tàmbalee di leen woo lan ngeen dégg mu ne usikum bi shababi xayran maa ngi leen di dénk ndaw yi yiw ndax yàlla yónni na ma mag yëpp daw waaye ndaw yi ñoom ñoo ñëw kon maa ngi leen di dénk ndaw yi yiw kon dafa laaj ñu jàngal ndaw yi miinal leen yoon wi jàkka bi su ñu ñëw jàkk ñu jàpp ci loxo xale yi indi leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaam ñetti sàppe la doon nekk ñetti sàppe sàppe mag yi ñooy nekk ci kanam sàppe gu xale yi ndaw yi nekk ci digg bi sàppe jigéen ñi nekk ci ginnaaw yonent bi loolu moo doon jàkk sa jàkkaam mag yi ñooy nekk ci kanam xale yi nekk ci digg bi jigéen ñi nekk ci ginnaaw noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam organisé woon jàkkaam mu miinal xale yi jàkk ndax inna allah yuy bu siraara fil masjid yàlla dafa bëgg ay xale yuy dem jàkk mais tey ñun bu ñu dundee jamono boo xam ne xale yi duñ dem jàkk stade rek fi mu nekk ni bu ñuy ñëw stade bi mu ngi fas daal buñ ñëwee fii julli jàkk boo dem jàkk buñ julli sàngu ci suba matul ñetti rang bu nga ñëwee fii ñaari rang soo demee fële timis tisbaar doo fekk dara nga dem fële doo fekk dara te ñëpp jullit lañ wala lu ëpp ci dëkk bi jullit lañ loolu moo tax ñu war waax waa waar waa kër yi wax ak xale yu góor yi parce que ñoom ay jullit lañ tey benn xale bu góor bu deewee rek ci biir koñ bi rek lu ñuy wax jël leen yóbbu ko morgue ba am ngeen morgue jàkk boo ñëw Sénégal am na morgue seen jàkk bi am na morgue day ñëw rek indi morgue ba commencé daal di préparé fu ñu ko jëmee ci armée lu jullit yi fekk kooku ndeysaan bi ñu koy yóbbu amaana sax julliwul suba amaana julliwul tisbaar amaana julliwul takusaan amaana julliwul timis amaana julliwul gée amaana moom sax daawul ñëw ci jàkka bi xamul jàkka bi nu mu mel xamul imam bi sax nu mu tudd am na xale yu góor yoo xam ne ci koñ yi seen imaam yi sax xamuñu nuñ tudd boo leen laajoon yéen seen imaam nu mu tudd dañuy eh eh dañuy hésité nga xam ne loolu loolu rafetul moo tax dinañu ñun dinañu bëgg chaque jour bu ñu waxee am nañ waxtaan fenn ñu fexe ñu ñaax xale yi pour bu ñëwee ñu waxtaan waxtaan ak xale yi borom kër bu nekk li ngay ñaan yàlla tabaraka wa taala mooy sa doom mujj la ginnaaw borom kër bu nekk loolu ngay ñaan borom kër bu nekk da ngay ñaan yàlla yàlla na ma sama doom yi doon yàlla sama doom yi man ma njëkk leen dee sama doom yi nekk sama ginnaaw léegi nag yow bu fekkente ne da ngay ñaan yàlla nga njëkk leen dee nga bàyyi leen ginnaaw yow bu nga leen bàyyee ginnaaw ñoom xamuñu sax mënuñu la ñaanal mënuñu la ñaanal mënuñu jàng sax fatiha mënuñu jàng ulu allah mënuñu jàng dara mënuñu jàng dara ci alxuraan ñooñu lan la lay ñaanalee te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nit bu deewee bokk na ci lu koy fekki alaxira mooy doomam mu koy ñaanal yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam dafa am yoo xam ne sadaqatun jaariya la sadaqatun jaariya soo deewee nga dugg biir bàmmeel nga am doom boo xamante ne chaque jour mu julli mu ñaanal la tiyaaba direct foofu nga nekk bu fekkee am na benn jàkk boo tabaxoon comme nii jàkk bi ku fa julli rek nga am tiyaaba direct bu fekkente ne am na benn garab garab boo saxaloon garab garab bi nit ñëw mu lekk ci tiyaaba direct ngay am wala bu fekkee am na benn jàngale nga woon jàngale nga da nga doon jàngal alxuraan wala ngay jàngale diine yàlla ñi nga doon jàngal lépp lu ñu jàng rek nga am tiyaaba direct loolu mooy sadaqatun jaariya yonent bi saa salaam loolu la wax kon yooyu mbir yooyu dafa jar tey ñuy dajee xale yi di ci waxtaan ak ñoom di leen soññ di leen waar di leen jàngal ndax dëgg dëgg dëgg dëgg diine bi moom moo tax yàlla binduñu borom bi tabaraka wa taala nee na wa laqad baasna fi kulli ummatin rasul an ibudullah wajtanibu taaxuut xeet wu nekk mbooloo mu nekk yàlla nee na yónnee naa leen benn yonent pour yonent boobu na ñëw waar leen yonent boobu na ñëw waxtaan ak ñoom pour ñu jaamu yàlla ñu bañ a bokkaale xeet wu nekk suuf si ñu nekk yàlla yónni na fi ay yonent 124000 suuf si ñu nekk aadama moo njëkk a ñëw muhammad moo mujjee ñëw ñoom ñëpp boo leen limee mën nañ 124000 yonent ñoom ñëpp lan la ñuy ussi pour ñu jàngal nit ñi waar leen fàttali leen ah soññ leen ba ñu xam ne islaam moom mooy diine dëgg ba ñu xam ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni pour mu ñëw pour xeet wi yëpp dugg aljanna moo tax moom yonent mu ne xeet wi yëpp danañ dugg aljanna ba mu des ku bañ kullu ummatin yadxuluna aljanna illa man aba wa qila man yaba ya rasulallah qala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xeet wi yëpp danañ dugg aljanna ba mu des ku bañ ñu ne yonent ndax nit dina bañ a dugg aljanna mu ne waaw ku ma topp dugg aljanna ku ma bañ a topp yow yaa bañ a dugg aljanna kon ñun lii moo tax su école tëjee ñu tasaaroo ci biir dëkk bi chaque jour ñuy jóge Dakar di ñëw biir Casamance suñ ñëwee gox bu nekk dinañ fa jéem a jaar dañuy njëkkee Sédhiou jamono bu nekk bu ñu ñëwee Sédhiou la ñuy njëkkee semaine fan yi yëpp ñu ngi woon ci jàkka yi nekk fii yenn saa yi dañuy def fi projection de film guddi yenn saa yi ñu def fi ay waxtaan suñu jullee fajar ci jàkk bi nga xam ne foofu la ñu nekk fële dañuy dafay def waxtaan tisbaar ñu def fa waxtaan tàkkusaan nag ñuy dem jàkk yi nekk ñi nga xam ne moom moo nekk fi ci biir gox bi di ci di fàttali di fàttalante ak mag ñi di jàngalante ak ñoom suñu diine ndax loolu moo tax yàlla tabaraka wa taala indi fi nit ñi ndax al ulama warasatul anbiya borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi yonent yi lan moo doon seen métier mooy waaraate jubal nit ñi fexe ba nit ñi jubóog yàlla loolu mooy liggéeyu yonent yonent yi nag comme dootuñu ñëwati yonent arrêté na ginnaaw Muhammad yonent dootul am yàlla tabaraka wa taala borom xam-xam yi la yónni ñoom ñoo am responsabilité ñoom ñoo war a leeralal jullit ñi seen diine borom xam-xam yi amatuñu droit noppi dañu war a dugg ci gox yi di waaraate di teg nit ñi ci yoon ci yoonu lislaam ndax lu tax ndax xam-xam responsabilité la ci kanamu yàlla képp ku xam amoo droit noppi soo noppee yowmal qiyam dañuy jël ngalaab ngalaab mooy loolu ñuy takkal fii fas te ñi takk buum fii di nekk weñ yowmal qiyam bu fekkee borom xam-xam bi du wax yowmal qiyam dañ koy ngalaab ngalaabu fas ci biir sa ci biir jahannama loolu moo tax mu nekk responsabilité bu diis bu rëy ci kanamu yàlla tabaraka wa taala tey ci kaw borom xam-xam yi pour ñu leeral diine yàlla bi pour ñu jàngalante ko ñun loolu rek mooy mooy sunu sunu taxawaay du ñu ñëw pour jàngale ndax ku am xam-xam moom mooy jàngale waaye chaque jour dañuy ñëw rek pour di fàttali di fàttali chaque jour dañuy ñëw dugg ci jàkka yi di fàttali ndax lan moo tax ñu taamu jàkka yi mooy jàkk mooy néegu yàlla jàkk fa la jaamu yàlla yi di daje jaamu yàlla nag suñ koy fàttali waxu yàlla daf koy jëriñ ndax alquran bi waxu yàlla la jàkk bi néegu yàlla la ñun ay jaamu yàlla lañ kon néegu yàlla jaamu yàlla ñu fiy wax waxu yàlla kon dafa war a jëriñ jaamu yàlla yi loolu moo tax ñuy songu jàkka yi di fa di fa waaxu di fa dem di jéem a fekk di fekk di fexe di julli ji foofu tàkkusaan pour dajeeg mag ñi fa nekk waaye surtout nag pour dajeeg ndaw yi nga xam ne ñoom ñooy dem jàkk pour ñu leen di soññ ñu xam yan tiyaaba moom moo nekk ci julli jàkk islam dafa bëgg jullit muy dem jàkk yàlla tabaraka wa taala wax na ci alquran wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid fu ngeen mën a nekk na ngeen julli ji jàkk fu ngeen mën a nekk yàlla sax dafa wax ne xuzu zinatakum inda kulli masjid bu ngeen di dem jàkk na ngeen sol yére bu bu baax yére bu bu set yére bu rafet ngeen dem julli ji ko jàkk ya yonent bi yemul ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa doon wax ne man yitte woon naa julli jot ñu ñëw ci jàkk bi ñu nodd li xam mu ne ma jël benn waaye ma ni ko jiiteel ma daa di jël ma daa di génn ànd ak ay nit ñu ut ay matt ci àll bi ñu ut ay matt suñu utee ay matt ba mu bëri mu ne ma ñëw ci dëkk bi ma seet kër ñi nga xam ne duñ dem jàkka ma taal seen kër yi kon tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu doon ñëw bu ñëw bu ñëwaatoon tey Sénégal bu ñëwaatoon tey ci àddina bi dina lakk kër jullit yu bëree bëri ngay gis jullit boo xam ne def na ci quartier bi ñeent fukki at musul ñëw jàkk te pourtant waa jàkka bi ñu ngi nangu ne kooku jullit la te lan lañu wax la salaata li jaaril masjid illa fil masjid ku dëkk ci wetu jàkk bi te doo ñëw jàkk yonent bi nee na yow doo jullit yow soo jullee amoo jullit tey lan la ñuy tiitaroo mooy dëkk ci wetu jàkk bi te doo dem jàkk loolu la ñuy tiitaroo tey ñun yenn saa yi sax nga gis koñ yoo xam ne boo fa buggee tabax jàkk ñu ne non non te bu ñu bu ñu tabaxee jàkk jàkk bi day sonal nit ñi ndax bu ñuy nodd nodd bi day day yee nit ñi ñun gis nañ ko Dakar ba sonn ñun gis nañ ko gis nañ ay koñ yoo xam ne ay cité yoo xam ne ay borom xaalis ñoo fa nekk soo ñëwee nga bëgg faa def ak jàkk ñu ne la non non fii il n'a pas question terrain bi kenn du ko def jàkk parce que bu ngeen ko defee jàkk bi da ngeen di sonal nit ñi fii di ah waaw gis nga ne ko da nga ma may nelaw nga may yàqal nelaw loolu dafa bëri tey te ñoo ñëpp ay jullit lañ te jullit bu dul dem jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow doo jullit yonent bi dafa bëggoon lakk kër ñi nga xam ne duñ dem jàkk lan moo ñu ne yonent bi lan moo tax nga bàyyi ko mu ne jigéen ñi moo tax ma bàyyi ko ak ñu feebar ñi ak màgget yi ñoo ñoo tax ma bàyyi ko waaye su doon loolu dinaa lakk kër yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bashir almasaina bi zalaami bi anna lahum nuurun tàmma yowma alqiyama na ngeen kontaan loo na ngeen bégal ñi nga xam ne dañuy dox ci lëndëm yi ci lëndëm di dem jàkk suba sooy ñëw julli suba ci lëndëm ngay dox sooy ñëw julli ci gée ak timis ci lëndëm ngay dox yonent bi nee na nañ ñu bégal ñooñu nañ leen wax ne yowmal qiyam yàlla da leen di leeral ba ñu leer nañ pour dugg aljanna loolu fan la ko jullit di amee nuuru tàmm yowmal qiyaama fan ci dem jàkk nga koy amee dem jàkk bal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku julli 40 jours ci ginnaaw imam 40 jours ñeen fukki fan tardé woo takbiratul ihram chaque jour yaa ngi fekke ñuy wax allahu akbar imam di wax takbiratul ihram ñeen fukki fan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow yàlla dindil na la ñaari mbir bu njëkk yàlla dindi na ci yow doo naafiq ñaar yàlla dindi na sa tur yow dootoo dem safara 40 jours tey suñu waxoon Sédhiou Sédhiou fan mooy ville bi Sédhiou fan mooy ville bi ville u Sédhiou fan la nekk ah Masakunda foofu moo gën a cher de ay terrain foofu moo gën a cher fii de ah non non foofu mooy ville foofu mooy ville bi fan moo gën a cher terrain yi fii ci Sédhiou foofu la ville bi fu mu nekk chaque jour mooy gën a cher tey suñu waxoon nit bu fanaanee foofu ba bët set dinañ ko fa may terrain dinañ dem foofu fanaan foofu duñ dem ah yi ñëpp dañuy dem xoola yonent bi saa sallam lu wax rakkaatay fajar xayrun min ad-dunya rakkaatay fajar xayrun min ad-dunya est-ce que kër foofu dunya la wala du aduna ah xayrun min ad-dunya wa ma fiha su su fajar jotee terewul dañuy nodd allahu akbar allahu akbar nodd bil ilbalaal day ñëw nodd ñaata yoon benn ñaar ñett yenn saa yi sax ñu wax ci rajo bi ci soose julli jot na préparé leen julli bi jege na terewul jàkk bi du fees su stade bi jotee jàkk stade bi day fees del te kenn wootewul wala stade dañuy woote day am fa bilaal yu noddu ne ñëw leen amul te xoolal jàkk dañoo tabax jàkk nit ñi xam nañ ne dañuy julli loolu doyul de ñu ut bilaal pour muy muy woote loolu doyul de ñu ut rajo rajo bi pour lan la pour wax nit ñi julli jot na ñi ngi julli mais te nit ñi duñ ñëw xam ngeen seytaan li seytaane la xoolal lii lépp ñetti mbir a ngi nii lii lépp pour jullit bi ñëw julli mais jullit bi bañ a julli léegi nag ba benn bis nag léegi deene nag ñu ne nañ ko yóbbu jàkka ba suñ ko sangee ba pare balaa ñu koy yóbbu fan lañ koy indi fan lañ koy jullee du ci jàkka bi kan ma koy jullee du imaam te kii imaam di jullee imaam xamu ko te ci koñ bi la dëkk musu fi ñëw mbokk yi il faut yonent bi saa sallam li ma waxoon law taalamuna maa alim maa alam su ngeen xamoon li ma xam mu ne la bakaytum kasiran wala dahiktum qalilan cey su ngeen xamoon li ma xam mu ne di ngeen jooy lu bare bare bare bare bari di ngeen reetaan tuuti waaye di ngeen génn dugg ci mbedd yi koj nit ñi wax ak ñoom wallaay bu ñu xamoon alaxira lu fa nekk kon dinañu jaral tey jii ñu sol suñuy dàll ñu dem ba ci stade bi ñu waar xale yu nekk foofu pour ñu xam ne foofu fii mooy mujj wala aqibatu lil muttaqin fii mooy mujj dëgg bi dëgg bi fii la du fële mais xoolal fële nu mu xumbee xoolal danse yi ni ñuy feesee xoolal feccukaay yi ni muy feesee xoolal fowukaay yi ni muy feesee waaye xoolal dëgg yàlla bi lii yonent bi waxoon ne bada ad diinu gariban wa sa yaudu gariban kama badaa fa tuuba lil guraba yonent bi nee na islam bi bu muy tàmbali dafa tumaranke mu ne buñ demee ba àdduna di waaj a jeex islam day tumaranke ci loolu lañ nekk nii lislaam dafa tumaranke weesuwul ay julit nekk ci gox foo dem ci adduna bi ci Sénégal julit yi ñoo ëpp mais jàkka yi du fees lu dul lu dul tabaski jouru tabaski wala jouru vendredi wala su takk amee takk fii bu ñuy takk jàkka bi dina fees parce que di ngeen def lan bisaab bisaab ngeen di def wala beñe ak guro ah di ngeen def yooyu fii jàkka bi dina fees wala du fees du fees daal ñooñu ñëw lan moo leen di julli bisaab beñe tàngal naka doon Dakar day fees daal ana xale yi dañuy takk rek ñu ñëw takk amul doo gis kan man loolu du diine il faut ñu waxtaan ak xale yi il faut ñu yëgal leen ne julli jàkka mooy néegu jullit almasjidu baytul mu'min jàkka mooy néegu jullit jullit moom moom moom jàkka kan moom moom jàkka innama ya'muru innama ya'muru masajid allah man man amana billah xam ngeen kan mooy dundal néegu yàlla yàlla bu muy laaj mu ne xam ngeen kan moom moom néeg ñu ne ah mu ne man amana billah ku gëm yàlla kooku moom moom néeg kon léegi bu fekkee ne ne ñi am al imaanu billah ñoom ñoo nekk ci stade yi est-ce que loolu imaan la su ngeen demee tey ci jàkka stade bi lu lu ngeen fa fekk quatre-vingt-quinze pour cent yi fa nekk yëpp musulman lañ Abdallah moo fa nekk Muhammad moo fa nekk Fatima moo fa nekk ak Khadija ak Zeynab ak Umu Kalsum ñoom ñoo nekk foofu ñu bàyyi néegu yàlla bi ñu fa nekk yëpp mun ngaa wax ne julli wuñ tisbaar julli wuñ takusaan te timis foofu lañ leen di fekk yenn saa yi gee fekk leen fa wala bu leen fa gee fekkul su jeexee ñu ñëw fii ci biir dëkk bi fekk sonn nañ du ñu mën a julli waxtu yi après ñu tëdd noonu ñu dajale noonu nag dajale noonu ba dee ñëw loolu musiba naaru laay la kon sunu njaboot yi il faut mu yitteel nu sunu njaboot ndax yàlla wax na ci quran ne qul inna alxaasirin allazina xasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyama ñi perte dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne dañoo perte seen bopp perte seen njaboot yowmal xiyaam ñu daal leen di jël ñoom ñëpp yóbbu safara yowmal xiyaam yonent bi saa salaam bi muy leeral xadis a taarifuna man humul muflis xam ngeen kan moo perte sahaaba yi ne ko dee xam nañ ko perte xam nañ ko mu ne kan la ñu ne mooy ku doon jaay mu am bitik muy jaay mu jaay ba weer bi dee mu compté mu amul bénéfice kooku perte na yonent bi ne déedéet kooku pertul de ñu naa mu ne kooku perte ndax kooku suñ ko lebalawaatee rek mu ne dem mu jëndaan marchandise mu ñëw mu jaayaat mu naamaat bénéfice mu ne ko perte mooy ku jógee àdduna mu dem yowmal xiyaam mu dajeeg jabaram mu dajeeg ay doomam ñoom ñoom ñu dékki moom mu waroon dem dugg aljanna nag parce que moom da doon julli da doon saraxe da doon woor da doon def lu baax léegi mu war a dem dugg aljanna rek jabar bi poñe ko ne ko yow musoo maa wax jógal julli doom yi ñëw poñe ko ne ko papa musoo dem jàkk nga wax ñu ñëwal dem jàkk jabar bi ne ko musoo maa yee jógal julli musul am li nga ma doon wax rek mooy fóot bi satul ceeb bi neexul bul génn kër gi wala foo demoon guddee nga loolu rek nga ma doon wax mu soo maa wax jugul julli tey doo dem bàyyi ma ah ndeysaan jàng ngeen alquran yàlla mu ne waqifuhum innahum mas'uluun na ngeen leen jàpp tey dañuy laajante lan la yàlla wax ndeysaan ñu jàpp jër borom kër bi ñu seet tiyaabaam am na tiyaaba bu bëri waaye jabar bi amul tiyaaba doom yi amuñu tiyaaba ñu jël tiyaabaam moom séddale ko doom yi ak jabar bi ak moom motu leen tuuti lañ am ñu daal leen di jël ñoom ñëpp yóbbu safara yonent bi saa salaam nee na ala yàlla nee na ci quran ala inna dalika huwa alxusraanul mubin loolu mooy perte dëgg dëgg dëgg dëgg mooy yow yow mal xiyaam nga ñëw war a dugg aljanna sa jabar jàpp la sa doom jàpp la sa rakk yi jàpp la sa mbokk yi jàpp la ñu séddoog yow sa tiyaaba nga daal dem safara loolu moom lu nar a dal ñu nekk di jaamu yàlla sunu doom yi nekk ci stade yi nekk ci soraano yi nekk ci stade lamb yi di bëre ba ñu dee ñu dajeeg yàlla fekk ñun amuñu benn tiyaaba yent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam alxuraan bu mu ñu indil suñ ci xoolee rek dinañ mun a yar sunu doom yi ndax yàlla wan nañu ay papa yoo xam ne ñu ngi ci alxuraan pour ñu roy papa yooyu pour sunu doom yi baax yàlla wan nañu benn papa bu tudd ibrahim ibrahima alayhi salaam dafa am doom mu jël doom bi ci àll bi ci dëkk bi mu yóbbu ko ba ci àll bi ba ci wetu jàkka ji mu def foofu këram rabbi inni askantu zurriyati bi waadin gayra zi zar'in ñu ne ko limaada mu ne rabbana li yuqimu salaa yàlla man jël naa sama doom toxal naa leen fii ci ville bi Palestine la leen jële ci ville bi mu yóbbu leen ba ci masjidul har haram fii waadin gayra zi zar'in ci xur woo xam ne soo fa bayee du sax amul ndox kon xanaa àll la amul garab ci bi ay montagne xeer kese mu indi doomam Ismaïl ak jabaram Saarata mu daal leen di sànni foofu bu ko ndaw si bu mu tegee doom ji ak ku jigéen ki mu wan leen ginnaaw doom bi jabar bi jàpp ci mbubu bi nii mu daal di koy geestu mu ne lu tax nga jabar bi ne ko lu tax nga def lii mu ne yàlla moom ko sant jabar bi mu ne kon yàlla dunu seetaan gis nga Ibrahima dem tey lan moo jur foofu lan moo am foofu nit ñoom ñu ngi bëgg a dem màkk ku lay ñaanal lu mu lay wax ku lay wax ñaanal ma lu mu lay wax ñaanal ma ma dem màkk way ñaanal ma dem màkk gis nga lu tax parce que gis nga kooku loolu mu defoon am na njëriñ dafa indi doomam ak jabaram ba ci wetu jàkka bi buñ ko laajee lu tax mu ne pour ñu mun a julli rabbana li yuqimu salaa pour ñu mun a julli jabar bi di julli doom bi julli lan la yàlla def ci dëkk ba dëkk ba am barke dëkk bi naat dëkk bi baax dëkk bi sell dëkk bi mooy ngën gi dëkk mooy makkatal mukarram moo gën ci dëkk yi lan moo waral loolu mooy papa ba doon jaamu yàlla jabar bi di jaamu yàlla doom bi nangu jaamu yàlla dëkk bi yàlla daal di koy naatal kooku benn baay la bu tudd Ibrahim ñaareelu baay mooy Yaqub alayhi salaam Yaqub lan la ci Ibrahima surtout Ibrahima la waaye keroog bu muy dee doom yi nekk ci wetam toog lan la leen doon conseillé lan leen doon doon dénk yàlla mu ne am kuntum shuhada iz hadara yaquba al mawt iz qaala li banihi ma taabuduna min baadi yàlla mu ne ndax yéen fekk ngeen keroog ba yaquba di dee doom yi nekk ci wetam mu leen di dénk lan la leen wax est-ce que daf leen wax tool yaa ngi nii tool yi am naa ñeen fukki tool na ngeen ko séddoo ku nekk na jël benn na ngeen ko bay loolu la leen wax daf leen wax projet alal yi am naa ay ay xaalis ah mu ngi banque loolu la leen wax ndax daf leen wax ne am naa ay kër am naa ay kër kër kër ku nekk nangam nangam loolu la leen wax déedéet xam nga la leen wax maa taabuduna min baadi lan ngeen di jaamu su ma deewee lan ngeen di jaamu lan ngeen di jaamu ban yàlla ngeen di gëm ndeysaan doom yi daal di tontu tontu bu ko neex dafa nekkoon ci sukuraat de mu ngi waaj a dee waaye dafa kontaan qaalu naabudu ilahak wa ilaha abaik ibrahim wa ismail wa ishaq ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun papa asa xel dal ñun insha allah diine bi nga ñu bàyyee muy diine l'islam ëllëg yawmal qiyam danañ dajeeg yow ci l'islam la ñuy nekk du ñu génn l'islam tey da ngay gis papa joo xam ne ndeysaan day dee mu bàyyi fi ay mbër mbër Sédhiou am ngeen ay mbër ah am ngeen ay mbër est wala nga gis papa bu dee lan la fi bàyyi ay kankuran ay rappeur ay disquette ay disco ay musicien ku dee su benn papa deewee mu dem ci yàlla yàlla mu ne ko yow sa doom yi nekk Sédhiou lan lañ mu ne mu ne mbër lañ kan moo ñemee taxaw kanam yàlla mu ne am naa doomu mbër wala am naa doomu rappeur est ce que neexul nga dem ci yàlla yàlla mu ne la sa doom yi lan lañ nga ni jàngkatu alquran hafiz am naa ñetti doom yu wàcc alquran wala sama doom yi ñoom ñooy imaamu jàkka ja wala sama doom yi ah allahu akbar bi ngay kontaan waaye boo fi bàyyee loo xam ne ñoo xam ne du gëmuñu yàlla boo fi bàyyee ay doom yoo xam ne football rek lañ gëm wala musique rek lañ gëm wala kankurang rek lañ gëm loolu musiba la beneen bàyyi boo xamante ne du ibrahim du yaqub ban baay la luqmaanul hakim luqmaan dafa am doom buggul mu bàyyi doom bi fi yowmal qiyaam doom bi dem safara xam nga lu mu def dafa indi doom bi mu ne doom bi toogal doom bi toog mu sotti fii saaku dugub saaku dugub la sotti par benn pepp lay waar doom bi par benn pepp day jël benn pepp dugub xam ngeen dugub xam ngeen ko par benn lay jël benn mu ne nii mu ne yaa bunayya commencé benn par benn ah su waxee ba yaa bunayya jeex mu daal di teg mu daal di jëlaat beneen yaa bunayya yàlla ñamal na ci tuuti ci alxuraan ci yaa bunayya yi aqimi salaa yaa bunayya laa tushrik billah inna shirka la zulmun azim yaa bunayya waqsid fi masjid waxdu par benn muy waar doom bi di waar doom bi di teg balaa balaa balaa jalu sa aku bi digg doom bi daal di daanu dee mu ne alhamdulilah rabbil alamin ndax bàyyi ma fi yéefér mu jël suuli mu ne bàyyi ma fi koo xam ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dina ma poñe mu ma koy laaj xoolal te alquran jàngal nañu ci suratul kahfi yàlla mu ne am na ñaari baay amma alxulaam fa kaana abwaahu muminayni fa xasina an yuriqehuma turyaanan wa kufra yàlla wax na nañu rey ñaari nit yàlla yi santaane nañu rey doom lu tax ñu rey doom bi ndax yàlla nee na doom bi su màggee day tax papaam ak yaayam dem safara kon ndeke nañu moytandiku ñu am doom yoo xam ne ëllëg yowmal xiyaam mooy tax doom yi ñun ñooy tax doom yi mooy tax ñun ñu dem safara ndax yàlla tabaraka wa taala wax na xudar na rey xale boobu nga xam ne moom moo nekkoon ak Moussa yàlla jox ndigal xudar mu ne ko reyal xale bi Moussa bu mu laajee lan lan la ko xudar tont xale bi su màggee day def ndeyam ak baayam yéeféer ndeyam ak baayam ay jullit lañ amma al xulaamu fa kaana abwaahu muminayni yàlla waxul sax muslimayni kon ñoom dañu am iman waaye yàlla nee na xale bi su màggee rek day détourné ndeyam ak baayam da leen di détourné da leen def ay yéeféer te ndeyam ak baayam ay jullit lañ te ndeyam ak baayam bu ñu nekkee ay yéeféer dañuy dem safara yàlla mu ne lu xudar na rey xale boobu balaa xale bi di màgg kon ndeke mën nga nekk nde mën nga am doom mën nga am jabar nga am doom doom bi moom mooy fexe nga dem safara lan est-ce que daf lay jugal ci loo xam ne wala muy def ci kër gi loo xam ne yow da ngay toog di xool doom bi di def lu bon nga toog noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yadxulul janna dayus dayus dayus du dugg àjjana sahaaba yi ne ko kan mooy dayus mu ne alladi yaqiru suu fi ahlihi wa fi riwaya allazi yarda alxubusu fi ahlihi ñaari hadis la yonent bi ne dayus du dugg àjjana sahaaba yi ne ko kuy dayus mu ne borom kër goo xam ne waa këram bu ñuy déglu musique wala ñuy fecc wala ñuy def lu bon mu ne ñii ay xale lañ rek bàyyil bàyyil ñii ay xale lañ bu ñu màggee mu reex bu ñu màggee dinañ ko bàyyi ñii ay xale lañ du ci wax te loolu musiba naaru laay la te xam ngeen ne lu bon yàlla bëggu ko jàng ngeen ci alquran bu baax a baax yàlla tabaraka wa taala yónni jibril na dem alak benn dëkk jibril bu mu demee ci dëkk bi dafa delluwaat ci yàlla yàlla mu ne ko jibril alak nga dëkk bi mu ne déedéet yàlla mu ne ko lu tax mu ne dama faa fekk ku baax dama faa fekk benn nit bu baax jibril mu ne ko yàlla mu ne ko man maa la ko gën a xam man maa la gën a xam ne ku baax mu ngi foofu soo demal nga alag leen soo demee nga njëkkee ku baax ki soo demee nga njëkkee ku baax ki jibril mu ne yàlla lu tax mu ne parce que moom mu ngi ci dëkk bi mu ngi gis ñu may tooñ te kanamam du changé waxul merul de dafa ne mu ngi gis ñu may tooñ kanamam du changé allahu akbar kon dina jaadu ci waxtu yi ñu toll ci guddi yi ñu toll mbokk yi loolu warugar la pour ñun ñëpp nag ñun ñëpp ñun ñëpp warugar la pour ñun ñu yenu masulu daawa ñu dugg ci mbedd yi wax ak waa dëkk bi wax ak nit ñi jot na jot na loolu yàlla tabaraka doon wax ne alam yaani lillazina amanu an taxshaa qulubuhum li zikrillahi wa ma nazala min alxaq benn sàcc dafa dugg ci kër guddi muy sàcc borom kër gi mu ngi jóg mu ngi naafila guddi muy jàng suratul hadid ba mu egg alam yaani lilladina amanu an taxsha qulubuhum rek sàcc bi dégloo rek mu daal di yuux rek mu daanu ci sumu dee bu waa ji naafila ba pare mu ñëw xool mu fekk kii dee na mu xool kër gi fan la jaar mu fekk dafa dajji fenêtre bi mu xam ne kon kii sàcc la waaye lan moo ko rey aaya alquran kooku lan moo tax muy sàcc dafa sonn amul dara waaye dégg na alquranul karim ndax aaya bi moo ko rey nit jàng na alhaakumu takaasur mu xëm daal di dee alhaakumu takaasur rek mu xëm dee kon mbokk julit yi warugaru lislaam daawa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko teg suñu kaw ñun ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw jullit bi fu mu war a toll dafa war a yenu responsabilité lislaam ci biir këram ci dëkkandoom ci biir jàkk bi ci mbedd yi fu nekk rek dañu war a wax ak jullit yi ndax yonent sallallahu alayhi wasallam loolu moo doon mission yonent la yàlla yónni woon ñun yàlla moo nu yónni ndax yonent waxul ballighu anni ballighu anni walaw aaya walaw aaya kan ci jullit yi tey moo mokkalul aaya alquran ban jullit ngeen di gis mokkalul benn aaya ban jullit ngeen di gis mokkalul ñaari aaya ban jullit ngeen di gis mokkalul sax lu mat juzu amma ba mu jeex Tufaylu ibnu Amrin benn waay la woon boo xam ne mu ngi dëkk daw Daws moo doon seen chef de quartier yéeféer la woon mu jógee daws muy ñëw màkk muy ziyaare ji xërëm yi mu ñëw waaye jamono boobu mu ngi fekk yonente sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woote yonente bi commencé na woote mooy ca l'islam bu metti ba ba ñuy jàpp nit ñi di leen dóor di leen rey ak di bañ ko dugg ci l'islam bi daan ne Tufayl am na benn waaye bu nekk ci kaaba gi doomu Abdul Mutalib la soo su ngeen demee ci kaaba bi rek di nga gis foofu lay taxaw muy waaraate waaye boo ngeen demee bu leen ko déglu ndax soo ko dégloo rek daf lay tàqale ak sa jabar daf lay tàqale ak sa doom daf lay tàqale ak say mbokk ñu jàpp Tufaylu di ko tiital di ko tiital ba Tufaylu jël ay witteen coton bu daal def ci nopp yi pour bu demee kaaba gi bu mu déglu Muhammad suba jot Tufaylu génn këram mu jëm ci kaaba gi mu ñëw fekk yonente bi saa salaam mu ngi jàng alquran mu ngi waaraate muy su rombee yonente bi tuuti mu taxaw déglu ngelaw li jël aaya alquran yi daal di koy sànni ci noppi mu daal di romb witteen yi daal di dugg ci xol bi xam ngeen ne witteen tuuti na ci téye kàddu yàlla witteen tuuti na ci fan la tufay lu mujj muy raam di déglu ndànk di raam di déglu ndoo ba jaba jaag mu taxaw mu ne ajaban li nafsi fa kayfa uiru aqli gayri man de waar naa sama bopp man de yéem naa sama bopp naka laay jëlee sama xel ma abal ko keneen man ñu tiital ma rek ñu ne bu ma déglu yonente bi rek ñu tiital ma rek ma tiit waaye naa jege waa ji su ma ko jegee su waxee lu baax ma jël su waxee loo xam ne amul njëriñ ma dem sama yoon ndeysaan léeg-léeg loolu daf ñuy dal léeg-léeg loolu daf ñuy dal dañuy ñëw ci dëkk ñu dugg ci koñ yi di waaraar ñu nga gis am ku dem ci mag ñi ñu ne bu leen déglu ñii bu leen leen déglu ñii li ñuy wax baaxul chaque jour buñ ñëwee ndeysaan wax ba pare rek ñu ne ah ilimaan mu ne ah man de waxuñu ma woon lii ñu ne lu ngeen doon wax baaxul waaye yéen di lu baax ngeen wax ñu ne ñun amuñu lu bon ñun amuñu lu bon ñun ay jullit la ñu yéene suñuy mbokk jullit ñu dugg aljanna ay jullit lañ yoo xam ne dañoo yenu responsabilité ilm ilm boobu bugg ñu dajeeg yàlla tabaraka wa taala mu ne lu tax ngeen amoon xam-xam ngeen noppi ngeen gis nit ñi ñuy mooy yàlla yéen ngeen noppi lu tax moo tax tey ñuy wër di dugg ci mbokk mbedd yi di wax ak di jullit yi loolu la tufaylu loolu moo ko dal mu jege yonent bi saa salaam mu ne yonent bi waxal ma dégg balaa mu koy waxal xam nga lu mu ko wax da ko ne samitu maqalata qawmika fiika dégg naa say mbokk lu ñu wax ci yow dégg naa sa mbokk lu ñu wax waaw nee nañ nangam nangam wax ku lépp nee nañ ku la déglu rek bàyyi ay mbokkam ku la déglu rek bàyyi jabaram ku la déglu bàyyi doomam waaye waxal ma dégg yàlla moo la yónni mu ne waaw mu ne waxal ma dégg lu yàlla wax yonent bi daal di koy jàngal alxuraan tufaylu daal di gëm tey jii la tufaylu gëm tey ci ngoon gii tey jii ci bis bii la tufaylu gëm yàlla waaye dégg lu mu wax yonent bi da ko ne yaa rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina farsilni ilayhim tey jii la dugg ci lislaam mu yëg ne tey yenu na responsabilité dafa war a dem génn ji waa daws waxu ko sama waa kër de da ko ne waa daws waa dëkk ba waa dëkk bi la war a dem génn ji tey waa dëkkam waxu ko sama waa kër de waxu ko sama jabar de waxu ko sama doom da ko ne waa daws waa dëkk ba ñëpp ay yéeféer lañ ñu ngi naan sàngara ñu ngi njaaloo ñu ngi lekk riba yonent yónni ma ma dem génn ji leen yónni ma ne ko demal nga indi ji leen tufaylu ndeysaan dem këram papaam la njëkk a waar papaam ñëw mu waar yaayam yaayam ñëw mu commencé ci dëkk bi commencé ci dëkk bi ba dëkk bi yëpp tuub tufaylu ibnu amr moo indil yonent bi abu hurayra kooku ñu naan abdourahman ibnu sakhra dawsi nga xam ne mokkal na ci hadis yonent bi 5374 hadis yonent kenn ab kenn daawu yonent daawu ko de tufaylu ibnu amrin moo tuubloo abu hurayra indi ko ci kanam yonent bi mu mokkal 5374 hadis xoolal tufaylu moo ko daawa kon ndeke daawa yéen a ngi nii séeju di nelaw ah yéen a ngi nii yéen du aad yi ngeen nekk séeju di nelaw stade yi du fees jàkka yi du fees responsabilité amaana la bu ne bu yàlla teg seen kaw bu ngeen yaakaar da ngeen war a bàyyi stade yi xale yi def stade paa yi rek nekk ci jàkk yi di julli yéen jeunes yi ngeen nekk ci ataaya di naan responsabilité ci yàlla tabaraka wa taala ak jigéen ñi waaw bu ngeen jàppee ne yéen rek yéen war a dugg aljanna ngeen muuru ngeen toog seen kër yi ngeen naafi la guddi jooy dem marché ñëw togg añ lekk bàyyi xale yi jigéen yeneen ñuy dem stade am ngeen responsabilité ci kanamu yàlla diine bi amaana la de gis nga abu abubakar abubakar keroog ba mu tuugee toobee ci kanam yonent saa salaam mu daal di tuub mu ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abubakar mu ne yonent bi lan moo ma war lii diine bi lan laa war a def yoon bi ne lu ma war a def loolu nga war a def mu ne xaaral ma ñëw mu génn premier jour mu indi Ousmane Ibn Affan premier jour mu ne yoon kenn mu ngi nii day tuub deuxième jour mu indi Ousmane Ibn Maazun mu ne yoon di tey indi naa keneen troisième jour mu indi Bilal Ibn Rabah quatrième jour mu indi Arqam Ibn chaque jour sept jours bis mu nekk Aboubacar mu indi kenn yeneen bi yéen ñi toog fi yëpp kenn ku nekk kan nga mës a indi koo indi bi nga dundee sunna ba léegi indi nga kenn indi nga kenn indi nga indi nga indi jigéen ñi kenn indiwul kenn toog rek ba kañ allahu akbar haza amaana ayo al ahbab lii responsabilité la sahaaba yi la leneen yoon di waxoon waxoon keroog bi yoon di ne fal yuballigh shahidu minkumul ghaib yéen ñi fekke tey jox leen mbir mi ñu ñëwagul sahaaba yi dañoo tasaaroo ci àddina bi loolu mooy indi islam Sénégal du sahaaba yi nekkoon Makka rek di nelaw di naan zamzam raay hajaratul aswad tëdd maqaama ibrahim la ilaha illallah kaaba bi mu ngi nii allahu ak te amakinul muqaddasa foofu la nekk fan la zamzam bi nekk damay laaj zamzam fu mu nekk hajaratul aswad fu mu nekk maqaama ibrahim fan la nekk safa ak marwa fan la nekk yonent bi saa salaam nee na màkk soo fa jullee ñaari rakk fii ñaata la tolloon ñaar rakk ci biir kaaba gi ñaata la fii ñaar rakk jàkka yonent bi ñaata la fii ñaar téeméeri rakk ñaari jàkk makk ñaari rakk biir makk mu ngi tolloo fii ñaar téeméeri rakk téeméeri ñaari rakk ñaari rakk jàkk yonent bi mu ngi tolloo fii téeméeri rakk waaw te xoolal ñoom dañoo bàyyi loolu foofu dañ ko faa bàyyi saaba yi dañoo bàyyi place yu sell yooyu ah xoolal xajaratul aswad boo ko raayee rek sa bakkaar yëpp dem boo ko raayee sa bakkaar yi ñu bàll saaba yi bàyyi ko foofu tasaaroo ci kaw suuf ñii ñu sul leen Inde ñii ñu sul leen Irak fan lañ sul imam Ali mi ngi Irak ah saaba yi tasaaroo ci kaw suuf tasaaroo wër adduna bi koo gis mu ne damay tasaare ji diine te ñu bàyyi foofu place yu sell yi kon ñun lan moon war mbokk yi est-ce que tëdd di nelaw est-ce que dañoo war a yox yox yi est-ce que dañoo war a toog rek nekk suñu kër yi di naan ataaya ñu bàyyi diine bi ak mag ñi abadan diine bi ñun dañ ci am responsabilité comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amee responsabilité yonent bi keroog keroog bu mu ne Aboubacar li ma war moo war Aboubacar ndeysaan dafa génn suba bu nekk muy génn di indi ay nit noonu la sahaaba yi tasaaro am na sahaaba boo xam ne ba muy génn këram ba muy ñibbisiwaat am na 40 ans dafa bàyyi woon jabaram mu ëmb bu muy ñibbisi mu jaar ci jàkka Medinatu Munawwar mu julli ñaar raak mu fekk benn xale taxaw di waaraate comme ni may fàttalee nii benn xale taxaw di waaraate ba waaraate ba waaraate bi jeex ndeysaan mu daal di ànd ak bi ñu ñaanee ba muy jeex mu daal di gis xale bi jaar ci benn yoon mu daal di yéeg ci topp ci ginnaaw xale bi xale bi ñëw ba ci benn kër taxaw fëgg mu ñëw mu ne ko yow yaa doon waaraate ci jàkka mu naa mu ne ku baax ku mel ne yow lu muy ut kër jàmbur kooku ne ko ah fii suñu kër la yow mi yow yaa fi dëkkul man fii laa dëkk ñoom ñaar xoolal ñu ngi xuloo paa bi naan yow xale bi dëkkoo fi xale bi naan ko yow mi yaa fi dëkkul ku jigéen ki dégg leen ubbi bunt bi rek daal di jàpp paa bi ndeysaan yuuxu mu daal di gestu doom bi mu ne sa papa mu ngi nii mu ne papa ji kii nga ma bàyyiwuloon ma ëmb kii mu ngi nii papa ji duggul ci kër gi de mu ne maa ngi delluwaat maa ngi dem liggéeyali sama borom comme yow am nga ku la liggéeyal sa doom mu ngi nii mu ne na la liggéeyal mu ne maa ngi dem liggéeyali ji sama borom lan la delloo ci àll bi mu dem di waaraate ji ci àll bi la dee sahaaba yi dox nañ ci diina ji ba seen deru tànk yi lii teggeeku lii seen deru tànk yi teggeeku ndax naaj bu tànk dox nañ ci jamono seddaay ba seen weewu tànk yi teggeeku war nañu ay fas dawal fas yi ba ci biir géej ñu waat ci yàlla ñu ne suñu xamoon ginnaaw géej bi ay kër mu ngi fi danañ jàllal fas yi géej gi daal di jot li diine bi ah ñaata ñaata yonent la yàlla yónni wax naa ko sànq cent vingt quatre mille pour lan pour nit ñi jaamu yàlla wa in min umma illa xala fiha nazir wa in min umma amul benn xeet benn nation lu dul yàlla nee na yónni naa fa yonent pour yonent boobu dem waar leen léegi nag ñun lan mooy suñu mission ñun tëdd nelaw ah lekk caakir yi naan ataaya loolu mooy suñu mission abadan suñu mission mooy ixraaju nnaas min azulumaati ila nuur mooy génn nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer keroog sahaaba yi bu ñu tasaaroo lan lañ doon wax nit ñi keroog ba sahaaba bi taxawee ci kanam rustum lan la wax ji'naa li nuxrijakum min ibadati al ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawri al adyan ila adli al islam wa min diiqi dunya ila siati al axira ndeysaan ñëw nañ pour génne leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer génne leen ci jaamu gi ngeen di jaamu aduna jaamu aduna jaamu kër bu rafet jaamu yëre bu rafet jaamu jabar bu rafet jaamu matériel ay oto yu rafet ay bien dañoo ñëw pour génne leen ci loolu pour yóbbu leen leen ila si atil axira pour ngeen bàyyi xel alaxira ne sahaba bi wax na dëgg nit ñi dañuy jaamu dañuy jaamu ay matériel tey ñun lan moo nu sonal Sénégal ay matériel fii sax jàmm la mais bu ngeen demoon Dakar ku dëkkul ci wetu géej gi dëkkoo Nord Foire dëkkoo dëkkoo Almadi dëkkoo da da nga naan dëkkoo fenn da ngay gis ku ñu nomee fenn rek mu daal di toxu su fekkoon ne banlieue bi la dëkk mu toxu rek départ utali ay Almadi ay villa yoo xamante ne ay 50 millions suuf terrain terrain nii rek ay 14 millions nga jënd ko terrain kese kese boo boo fekkoon tabax nii tabax nga daaneel tabax bi nga commencé indi oto suuf daal di yëkkatiwaat benn lu kenn xamul lépp nga def ko karomar bi suba nga indi 4-4 waaye après quelques jours soo deewee anam soo deewee après nga bàyyi ko foofu ndeysaan ndeysaan nga bàyyi ko kooko bàyyeel ndeysaan waaw léegi yow dem nga yaa ngi dem ci yàlla yaa ngi indaale ay bakkaar bàyyi nga adduna dafa am benn buur bu tudd Haaruna Rachid dafa tabax benn château bu mu tabaxee château bi mu ne nit ñi kaay leen ngeen xool ndax lu mel ni mus na am ci adduna mu ne nit ñi mu ne nit ñi ñëpp ñëw nañu génne dëkk bi yëpp nañu ran góor ñi nañ taxaw nii jigéen ñi nañ taxaw nii xale yi nañ taxaw nii mu ne na ñëpp ñëw xool château bi ñëpp wër ba château bi jeex tak nit ñi jeex ci dëkk bi ñu ne mu ne waa dëkk mu ne mu ne mu ne garde corps yi ndax ñëpp seen nañ ñu ne ñëpp seen nañ xanaa dox bu tudd baaxlul bu nekk fii moom moo xoolul mu ne lu tax xoolul te moom nit la dem leen ngeen indi dof bi ñu indi dof bi dof bi dugg ñu ne kaay xool pale bi dof bi ñoo xool xool xool ba egsi ci moom mu ne ko baaxlul gis nga pale bi mu ne gis naa ko kay mu ne nu mu demee mu ne ko yëkkati nga àdduna daaneel nga àllaaxira bu fekkee sa alal la yàq nga bu fekkee alalu julli la yowmal xiyaam am nga problème yaag yàlla rek mu ne doy na doy na doy na bul ma gëli bul ma gëli doy na bul koy gëli doy na rek mu commencé jooy Haaruna Rashid commencé jooy ndeysaan commencé jooy Haaruna Rashid commencé jooy mu jooy ba daanu ci suuf ndeysaan mu ne Haaruna Rashid mu ne ko rafaatal dunya wa wadaatal axira yëkkati nga àdduna daaneel nga àllaaxira ndeysaan wa in kaana min maalika faqad afsatta bu fekkee sa alal la yàq nga wa in kaana min maali gayrika ay bu fekkee alalu jullit yi moom nga jël nga def nii mu ne yowmal xiyaam am nga problème sa kanam yaag borom ndax dañ lay xisaab rek ndeysaan buur bi yuuxu mu ne doy na doy na bul eggal yi doy na bul eggal yi ndeysaan bu ñu daal di jël xaarun rasid muy jooy muy direeku ñu daal di ko yóbbu baaxlul daal di génn dem yoonam est-ce que kooku dof la loolu mooy sunu adduna ñu nore lañu def adduna moo tax yàlla mën nañu bal tusiruuna al xayata addunia bal tusiruuna al xayata addunia wal axiratu xayrun wa abqa yéen a ngi dundal adduna rek adduna rek adduna adduna après quelques jours ñëbb la alaxira dëkk boo dem rek am na alaxira dëkk boo dem am na alaxira am ngeen ay armeel Sédhiou am na armeel am na foofu mooy alaxira foofu mooy alaxira ku dee rek sa alaxira taxaw na doomu aadama day dund ñetti dund adduna barzaq alaxira soo jógee adduna ñu yóbbu la barzaq moom mooy armeel yi soo jógee barzaq wa min waraihim barzaxun ila yawmi yubaasuun soo jógee barzaq ñu yóbbu la alaxira mooy yawmi yubaasuun ñetti dund fii bakkan bi mooy jiitu barzaq ruu bi mooy jiitu alaxira ñoom ñaari ñooy ànd moo tax fii nga war a fexe kii nga teg ko ci yoon soo poñewul bakkan bi jaarale wa ko yoon rek moom mu indi la problème bu seyri wax na ko bu seyri mu ne an nafs kat tiflu bakkan moo liir buy nàmp ñooyem liir xale yii boo amee doom muy nàmp mu nàmp nàmp nàmp nàmp nàmp ba ci yàgg noo koy def da nga koy feral yenn saa yi nga gis koo xam day jël doomam mu yóbbu kër maamam pour lan pour liir bi bu mu nàmp mu ne fer na nàmp na ñaata at na nàmb na ñaati at ak genn wàll doy na ba ma koy feral noonu nga nga poñee xale bi dootul nàmpati bu dee benn xar la bu dee xar buy nàmp bañ a bàyyi léeg-léeg day jaral nit ñi ñu jël lan ñu jël nefere ñu def ko ci weenu yaay ji wala ñu jël benn mbuus takk weenu yaay ji pour lan xar bu jigéen xar bi du mun a nàmp ah wala kaani ñu def ko ci weenu yaay bi nga xam ne xar bi bu nàmpee rek mu daal di saf mu daal di bàyyi léegi nag bakkan bi foog ñu def ko noonu soo ko feralul yàlla wax na ko ci alquran ci suratul naziat yàlla mu ne fa amma man taxa du noonu déedéet wa asara alxayata addunia fa inna aljahima hiya almawa waaye wa amma man xaafa maqama rabbi wa nahan wa nahan nafsa an hawa ci suratu sams yàlla la wax lan la wax qad aflaha man wa qad xaaba nafs baa ngoog qad xaaba man dassaha képp koo xam ne sa bakkan poñe nga ko nga fexe ba toppul bànneex yi ndax kat bànneex yàlla la afaraayta man ittaxasa ilahahu bànneex yàlla la gis nga xale yi lii ñuy gis ñuy def nii moom la ñu gëm mooy seen yàlla am na ñoo xam ne football lañ gëm mooy seen yàlla am na ñoo xam ne bëre lañ gëm mooy seen yàlla am na ñoo xam ne sàngara lañ gëm mooy seen yàlla am na ñoo xam ne xaalis lañ gëm mooy seen yàlla am na ñoo xam ne jigéen lañ gëm mooy seen yàlla képp koo xam ne li la tere dem ci yàlla rek loolu mooy sa yàlla afaraayta man ittaxasa ilahahu hawa xoolal waa joo xam ne yàlla mooy bànneexu bakkanam lu bakkan bi bëgg rek lool la kon mbokk yi ñu góorgóorlu ñu góorgóorlu ñu xam ne fii dañuy ñëw nii rek dañuy romb ñaari at ñetti at ñeenti at fukki at ñeent fukki at juróom fukki at juróom benn fukki at juróom ñaar fukki at après bàmmeel loolu rek la fii moom kenn du fi sax sax fii ndax mun ngeen maa indil benn nit boo xam ne ne bi ngeen ñëwee Sédhiou ba léegi mu ngi fi deewul mu ngi fi ci seen koñ bi ndax am na ci biir Sédhiou bi yëpp koo xam ne du dee amu fi bàyyi wuñ ko Dakar de bu ñuy ñëw bàyyi wuñ ko Dakar ku nekk foo nekk rek yàgg yàgg da ngay da ngay dee da ngay dem rek est-ce que su demee rek jeex na demee yaa ngi beneen monde yaa ngi alamul arwaax yaa ngi ci yàlla yàlla yëkkati la bàmmeel bi mu lay laaj kon lu am solo mooy jaamu yàlla jéem a baax jéem a liggéeyal sa borom pour boo deewee nga deewee yàlla yàlla xam ne kii kat jaamu woon na ma kii kat jaamu woon na yàlla kii kat liggéeyoon na lislaam yàlla daal ne yaa ayyatuha nafsul mutmainna irjii ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wa duxuli incha allah loolu laa doon fàttali sama bopp maa ngi leen di jéggalu kàddu yi maa ngi koy jéggalu sama borom su amee lu ci dëgër wala njuumte maa ngi koy jéggalu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah
alhamdulilah rabbil alamin salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi lu mel nii day daa jàpp fàttali ci jullit ñi ndax xam ngeen ne wax dëgg yàlla jullit ñi jamono bi ñu toll ci jamono bu doy waar la ñu nekk jamono boo xam ne jullit ñi fàtt nañ luy yàlla ba boo doon wax jullit ñi yàlla keneen di leen wax leneen moom la ñuy wóy ji wax na dëgg jàkk jaa ngi nii tey bu ñu tëggoon ay ndënd ci buntu ba fee léegi jàkk ci fees doo woo kenn benn tama rek tama rek bu génnoon na dong dong dong dong léegi fii koñ bi fees dal kon loola wax dëgg yàlla gàcce la ci jamono bi ñu toll tey ab jullit mbokk yi boo ko laajee farataay julli problème ñëw na ak lu mu rëy rëy rëy boo ko ne farataay julli ñaata la boo moytu mu am problème mën na laa wax nangam la waaye boo ko ne limal ma ko du continuer bu ne benn du wax ñaar donte kon dañ ne jullit bu rëy la mbokk yi gàcce bu rëy la ci li mu wax ni dëgg la tey da ngay dem ci ab dëkk wallahi la azim man dem naa ci ab dëkk ka fa ëpp xam-xam faatiha la mokkal qul huwa allahu ahad qul audu bi rabbi falaxi qul audu bi rabbi naasi ñeenti saar mooy élimaanu jàkk ja wallahi la azim dem naa ci dëkk boo xam ne ka nekk élimaan ba ñeenti saar la mokkal kon waa dëkk ba lu ñuy mokkal ka fa ëpp xam-xam laa wax ñeenti saar la mokkal mooy élimaanu jàkk ji kooku bu fekkee mu ngi waar nit ñi lu mu leen di wax xanaa da leen di xool rek jooy windeel bopp bi jooy xamul lu mu leen di wax di wallahi alazim kooku dem naa ba këram toog naa këram nuyoonte naa ak moom jàkkaloo na ak jàkk ji mu nekk ilimaan kon loolu mbokk yi te ab julit la ñuy wax de ab julit lay wuyoo ab julit lay wuyoo kon mbokk yi dina baax comme ni ko ustaad di junjee léegi ñu demaat ci kër yi fàttaliwaat suñuy suñuy soxna suñuy doom suñuy sët suñuy jarbaat ñu yëgal leen ni ñoom ay julit lañ àdduna bi nag ku dul julli rek perte nga julli mbokk yi mooy li nga xam ne nit bu faatoo moom la ñu njëkk a xool ustaas wax na ko léegi jullit julli la ñu njëkk a xool ci nit ki bu julli gi baaxee léppam baax na bu julli gi baax le wut du baax le ca rukkoo ya ca sujjóot ya ca taaya ba ca faatiya ba il faut ñu jàng ko ñun suñ diine rek lañ nangu jox ko ku xamut tey ñun ñiy toog ci jàkka ji ak ñiy dégg rajo ak ñi ñëwut ku yàlla war sagaloon léegi xaalis bu bëggee tabax day xooli benn ingénieur lay xooli ku mën da ko man day am naa terrain damaa bëgg ko ma fa tabaxal ñeenti néeg ak saal waañ ak duus mu ne waaw man day maçon bi mu ne ko ndax mën na ndax mën naa tabax loolu la njëkk laaj ndax maçon bi mën naa tabax ñu ne waaw ah moo tabax seen ko bâtiment sanga moo ko tabax ak naa mu ne waaw waaw waaw mu ngoog ku mel noonu laa bëgg léegi maçon bi bu ñëwee tabax bi yëpp day normal bu maçon bi ñëwoon commencé rek samp biir yi rek da tiit gasut fondement mu ne ko eh, loo bëgg non non damay tax mu ne ko yow mënoo tabax yow gasoo fondement mais ñun nag suñ diine ku jëndoon tey yére bu seer da ngay xool tailleur bu mën a ñaw fi nga ko yóbbu ku bëggoon armoire da ngay seet benn menuisier bu mën a liggéey ci ngay dem waaw lu tax suñ diine ji duñ xool ñu ko mën duñ laaj ñu ko mën ku ñu neex rek mu nekk suñu ilimaan ku neex rek mu ne kaa yaay ilimaan bi mu ñëw taxaw ci kanam sàpp bi kanam sàpp bi si ci imaam bii sàpp bii du ku mu neex rek mu taxaw fi li ngeen lal li ngeen lal basang bi nii borom xam-xamam fi war a taxaw koo xam ne bu ilimaan amee problème mu remplacé ko waaye te ilimaan bu kabaroon jàng ba ci kanam xelam daj ko ne ah yow kat jàpp woon kat da ngaa yàkkamti rek génn li bu arrière daa war a jàpp kenn xëcc ko mu ñëw place am boo moytul bu ma laalee ma rek parce que xaw ma bu xëccee kenn gis nga kon tey suñu diine boo duggoon ci oto bu chauffeur bi caaxaanee nga ne ko eh dawalal normal mais da ngay bourle feu bi parce que dañ ci am xam-xam dugg naa oto ñu jëm Podor chauffeur bi daw ba ci kanam mu gëmmantu ne nii bi xel ne ko sëñ bi mu ne am ne ko taxawal taxawal taxawal mu taxaw mu ne ko kaay kaay kaay wàccal wàccal mu wàcc mu ne ko ñëwal ci ginnaaw ma jël oto bi mu ne nii mu génnee ne ko poids lourd laa yore gis nga poids lourd yow da ngay nelaw kaay bala nga ñoo rey ci àll bi gis nga chauffeur bi daa toog ci ginnaaw matul 10 minutes mu nelaw bay xërën waa ji moo jël oto bi dawal ko ba Podor mu freiné sept place léegi bu fekkoon ne suñ diine ji la lu mën a def baax na kon loolu nañ ci góorgóorlu damaa def benn waxtaan ci sangu set bi ma paree ma ne ñi jàkkaarloog man ci jàkka la ma ne bu ngeen demee kenn ku ne ci ñun bu demee na xool ndax jabaram mën na ko wala déet ndax soxnaam bi mu takk indi ko ci kër gi ndax mën naa sangu set wala déet ndax mënee na ko nii beneen yoon ma ñëwaat dem waxtaan benn paa yëkkati loxoom ne ma wallahi doom li nga waxoon dëgg la ndek sama soxna yi kenn mënu doon sangu set ñaata at suñu réew mii ngay gis jigéen dee jëkkëram faatu ñu koy jàngal ne nii la ñuy sangoo set nii la ñuy jàppee da ngaa war a muuru nag léegi da ngaa war a muuru nga war a respecté waxtu yu juróom kon donc bi jëkkëram faatoo wut bi jëkkëram faatoo gul warta julli warta muuru warta respecté waxtu yu juróom léegi nag jëkkëram faatu na daa war a ténj ñu ne ko léegi nag da ngay julli waxtu yu juróom nag waxtu wu jot léegi nga julli ko ca waxtu wa ànd ak njàpp toog jublu penku tàllal say tànk ñu yokk ca nag tàllal tànk ya ak jublu penk ya jox ko paaka jox ko bant dool bokk ak nit ñi lekk am na benn kër bu ma dem tey am na jigéen bu fay tënj dañ koo beral lekkam jox ko fee mu toog di lekk lan moo tax diini ja xamuñ ko ustaas wax dëgg la te loolu dañ ko war a jàng loolu jullit bu ne war na koo xam jullit bu ne lu mu gàtt gàtt xam-xam war naa mën a jiite julli war naa mën a tudd doom war naa mën a takk ab sëy war naa mën a jullee ab néew ak lu jullit bi gàtt gàtt xam-xam lii war na koo mën waaye tey imaam a ngi nii moom la ñuy sal si yëpp moo nekk ci bopp bi te imaam joxuñ ko solde duñ ko fay weer de te bu tardé ñu kaas waaye tey imaam daa tardé waaye imaam fu mu nekkoon ba biddanti imaam nit la di comme yow yow da nga doon ñetti fan doo ñëw ci jàkk ñetti fan doo ñëw jàkk da ngay biddanti yàlla nag bu la am seet bu bees boo amee seet boo moytu jàkk ñi ñàkk nañ la fajar fajar moom bokkatoo fajar kay ñëwatoo jàkk buy xale bu góor moom yàlla dana am toog weer ñaari weer du ñëw jàkk ja xaritam sax ñàkk nañ ko timis rek tëdd na non booy taay taay damay seetu da nga génn du yàgg léegi nga génn kon yooyu suñu wàllu diine la war nañ ko jéem war nañ koo mën war nañ ko xam julli fii mooy mooy première liggéeyu lislaam ci doomu aadama bi kon bu ñëwee jàkk ji war nañ fi am julli bu dal mu bañ a nekk julli waa Dakar Dakar moom da nga ilimaan boo xam ne fi ñu nodde julli gi ak fi ñuy kabaree ak fu muy sëlmalee day nekk cinq minutes juróomi minutes dañuy xaar ba waxtu jot imaam bi ne allah bu bilaal bi ne allah balaa wax laa ilaha gaa yi taxaw ne bismillah bismillah imaam bu ne allah akbar du noyyi faatee du ko noyyi bismillah rahmaan rahmaan daal rahmaan rahmaan rahmaan rahmaan wala daalin xulaa laa laa sama allahu akbar allahu akbar allahu akbar salaamaaleykum jeex na julli ga jeex na mu toog fu mu jëm bu paree bu sëlmalee fu mu jëm lii farata la yàlla la ko sant yowmal qiyam dala koy laaj julli juróom la dala koy laaj yowmal qiyam nga ñëw li la yàlla sant defoo ko ba pare nga toog ne yàlla maa ngi lay joxaat leneen lu muy dëriñ sa jabar da nga koy yetti ne ko toggal añ mu bañ lànk du togg añ dala defal ay ngatoog ay beñeeg ay bonbon dina tegal boo gan ana añ bi te am nga gan bu la ne ah damaa fàtte toggaay lu mu la jox est ce que da nga ko faale waaye ngatu baa ngi nii yaay garaaw bonbon baa ngi nii beñe baa ngi nii ndox mu sedd ma loo koy wax lan nga koy wax da nga koy eh sama añ laa wax nga naan ma ay ndox mu sedd waay dooma waay yow maam ay gann toggal jox la dépense nga naan ma wallaay ne dama koo fàtte xoolal bi nga ma joxee ci jàpp kii bi fa ma ko teg laa ko fàtte lan la la mën a wax ci àdduna ba nga gëm ko ba nga lekk lim la indil kon julli farata noonu la mel ci jullit ñi yàlla lii mooy lu njëkk ci ñun ñu def ko boo ko deful leneen loo defal yàlla bëggut leneen loo ko defal bëggut te julli yooyu kaana alal mumin alal mumine kitaaban mawqut julli ay heure la ay waxtu la kenn du ko boole dajale doo julli suba tusubaar tàkkusaan ba timis nga fay déedéet du baax day mel ni jigéen ji war na togg añ togg reer togg ndékki mu dajale yëpp toog ba bët set mu xëy na nijaay ji baal ma de añ baa ngi nii nijaay baal ma de damaa xawoon a kii démb nijaay reer baa ngi nii nijaay baal ma de ndékki laa ngi nii tegal la yëpp andi yëpp à la fois tegal la ko léegi loo koy wax boo ko xoolee même boo ko baalee ñetti lekk yi benn nga ci lekk benn nga lekk añ bi wala nga lekk reer bi wala ndékki li waaye mënoo lekk ndékki li lekk añ bi lekk reer bi bon biir bi dana am problème kon yàlla julli yi waxtu wu jot rek demal joxe ko ca jàkk ji ñibbi at waxtu woo dégg ñu noddal ko doxal ndànk dem ca jàkk ji joxe ko ànd ak nga ñibbi mu ngi koy wax léegi ci waa kër gi waa kër gi na jar nga xeex ak ñoom ci julli jóg leen julli sa soxna bu la teree dem jàkk bés boo bëggee dem jàkk mu ne nijaay toogal bés dina ñëw mu yuuxu ca kaw nit ñi ñëw mu ne jël leen ko yóbbu ko ca morgue ba pare naa ci moom bés boo faatoo ci néeg bi sa jabar mooy yuuxu nit ñi ñëw mu ne jël leen yóbbu ca morgue ba pare naa ci moom mu fekkee lal bi moo nooy néeg bi moo neex ba tere laa dem jàkk bés dina ñëw ñu lëmas la ci sër bi nga tëddoon lëmas la ci yóbbu ca morgue ba kon mbokk yi ni ñu góorgóorlu ci jaamu yàlla bi may jeexalee nañu góorgóor ci yar suñuy doom yi jamono bi yar sa doom lu jafe la ndax bu leen fàtt ni télé bi daa nekk ci kër gi day yàq télé bi daa nekk ci kër gi waaye day yàq télé yi nekk ci kër yi 24 heures sur 24 duñ la génne film bu baax léegi sax bal xale yi góor yi dañuy dem jënd ay film yu bon xaar ba borom kër gi liggéeyi ñu dugg ci salle bi teg kase di toog di seetaan musique rek 24 sur 24 te déglukatu musique xol bi day wow déglukatu musique mënoo ko waar ndax musique day jëmbat ci xol naafiq comme ni ndox di sax lay ñax xoolal Sédhiou bu ñu xoolee juróomi weer ci gannaaw juróom benni weer boo xoolee doo seen dara lépp dafa wow mais jigéen bi ndox mi tawee guddeeg bëccëg waxuma kër yi de waaye mbedd mi sax ñax maa ngi ci sax ci buntu kër yi sax ñax maa ngi kaw néegi sax ñax maa ngi sax dam leen ngeen xool am néeg yoo xam ne boo demee ci kaw seen ñax maa ngi sax waaye kaw di ni yëngatu kon noonu la naafiq noonu la ko musique di yëngatee ci xol di ko saxal tey suñ kër yëpp musique am na jàkk yoo xam ne sax boo demee musique dafa am ba léegi ngeen baal ma ne ci kaddu gi ndax montor bañ def ci jàkk jam day am musique te musique boobu dañoo def ci jàkk montor boo gis dañ ko defal ñaari batterie batterie bii mooy dox pour heure bi bii mooy dox pour sonnerie bi bu fekkee sonnerie bi musique la dindi leen batterie bi rek montor bi normal waaye da ngay dégg tiriririririri tiriririririri teng teng teng waa bismillah kon ñun lan lañ lan moo ñu jox waxtu julli dootul nodd de musique bi il faut mu fëgg il faut moom tamit ne tiriririr teng teng teng am na yeneen jàkk na nga dang kondang kondang te loolu ci jamono yonent bi la amoon yonent bi tere ko ne bu mu fi amati nodd bu jotaan dañu ne nañu indi kolos kondang kondang yonent bi ne déedéet loolu chrétiens yi ñoo koy def ñun na añ bëj na ko turur mu ne déedéet loolu yahud yi ñoo koy def ñun nañ nodd wax na ko léegi da ngay dégg ko nodd ba jeexal naan waxtu wi jot na cinq heures moins la quart waxtu wi jot na cinq heures moins mais jartul kon nodd neen cinq heures moins la quart rek jartul nodd ndax nodd mooy kaa leen julli hayya ala sala mooy heure bi jot na ku dégg nodd rek na xam ne waxtu julli moo jot amul benn nit ku yeewu quatre heures trois heures ci guddi dem nodd jàkk ju ngeen dégg mosoo leen dégg ko fa nodd trois heures kon yooyu jullit ñi war nañ ci góorgóorlu lu tax ñu ci góorgóorlu ndax bu loolu amul suñ jaamu yàlla du baax bu loolu amul suñ diine du mat bu loolu amul suñuy soxla duñ xam ne diine góor da ci am paar jigéen am ci paar ñoo ko bokkale diine ñun ñëpp ci bokk ni ngay jullee sa soxla noonu la war a jullee ni ngay wooree ni ngay génne asaka ni ngay ajee màkk waaye tey jigéen ñi bokkuñ ci dara kon nañu góorgóorlu ci julli mbokk yi man li ma gën a ñor te moo yaakaar naa moo gën a ñor jullit ñi jamono bi mooy julli dangay gis julli boo xam ne mës sa julli wallahi dem naa ci dëkk ginnaaw bi ñu jullee tabaski ñu julli deux heures cinq heures kër gi fees ñuy julli bi ñu sëlmee benn xale bu góor jog ne ma daaw laa gëj a julli tabaski daaw laa gëj a julli at sa put jëm at te moo wax de am na ñoo xam ne daal mosuñu julli weeru koor daaw lañ gëj a julli ba weeru kooru ren jàkk ji seede na ko jàkk ji gëj naa fees ca weeru koor wa weeru koor da nga daan fekk jàkk ji fees ba ca biti ñu laal basang yi keroog bi ni weer yi feeñ ne suba la julli jàkk ji amul nit waxuma mbedd mi de jigéen ñoom kenn ñëw waaye buñ ne weeru koor taafeer kuur bi day fees bañ lal ca biti fale yow mi doon taxaw ci sàpp si kanam boo ñëwee boo moytu doo dugg ci jàkk ji fële ngay taxaw ci biti na fekk jàkk ji fees kon ñun ban heure la ñuy jaamu yàlla weeru koor ba weeru koor kii wax na ko wax na dëgg weeru koor ba weeru koor muy fukki weer ak ñaar benn lañ ciy jaamu yàlla fukki ak benn yëpp ñu éliminé ko kon naka lañ mën a jaamoo yàlla ci benn weer ba mu dominé fukki weer yeeg benn yëpp mu baax du baax kon day mel ni kuñ ne demal demal togg nga taal ba safara si tàkk nga sotti ci ndox toog di xaar naan dana ñor doo ñor la de nem sotte nga ci taal bi ndox dootul ñor kon nañu góorgóorlu ci loolu mbokk yi li ustaas wax nag ñun ay seeni mbokki julit lañ loolu mooy li gën a ndaw suñu seeni mbokki julit lañ ñoo bokk diine ji ñoo bokk adduna bi ñoo bokk itam benn famille bu ngeen ko bañee ñu dem xaar leen ci aadama fu ngeen dugg génn fekk ñu ci aadama ñu bokkaat rek suñ sëriñ moo ko daan wax bu ñëwee mën a maag yéen a bokk bu ngeen ko bañee ma dem xaar leen ci aadama fu ngeen dugg génn dugg génn wër wër wër wër ñëw ba ci aadama ci aadama la ñuy teeree ji bi ñu demee kër kurbali dama tourné ne maa ngi dem kër marsali abdallah masali Souleymane Masal ma dem fa bi ma ñëwee nuyu la ñu ne ma lu xam ne seen rakk bu jigéen suñ suñ kër lay sëy ñoom moo bokk maa ngi moom ñoo bokk benn kër ñu ne ma ah ma ne waaw fa laa añee ñu ne mukk da nga toog ba kon ñun benn benn mbokk rek ak kat kon su ko defee loolu daal ci gàttal ñu xam ne lu mel nii du ñëwuñ pour jàngale mais dina ñëw pour ñu fàttali nit ñi te lu mel nii dañoo war a dajalaat mbooloo yi ci koñ yi ci bedd yi di fàttali li ñuy diine ndax ñi gëmul diine kat ñu ngi koy def. fasaada mu ngi fii soriwut leen fasaada mu ngi fii soriwut leen ci boori Samina 200 kilomètres Ziguinchor benn góor moom fa yóbbu góor gu Abdoulah Fati mu ngi Dakar bi ñu yeggee mu ne Moussa fii bëgg nañ jàkk damaa téléphoné Dakar suñ benn waaye ma ne ko fii bëgg nañ jàkk de mu ne waaw ñëw leen ñu ñëw mu jëlaat otom ñu ñëw xool ñu ngay tabax jàkk jumaa ji yaakaar naa ko fa dem fan yi am na jumaa ji ñu fay tabax bu ànd ak école fukki mètre ak juróom koñ bu ne la fukki mètre ak juróom nii fukki mètre ak juróom nii ñu ngay tabax école bi yaakaar naa jumaa ji raas na kon yooyu yu mel noonu ñun ay mbokk lañ ay jullit lañ nañu gëm diine ñu ànd liggéeyal diine bu ñu kenn tàqale ñoo bokk allahu akbar ñoo bokk fatiha ñoo bokk penk bu ñuy jublu ñoo bokk rukkoo ñoo bokk sëlmal ñoo bokk nu ñuy yenew nit ku dee ñoo bokk nu ñu koy suulee ana lu ñu wutale làkk yi bokk lañ ko kii day làkk séeréer kii làkk soose kii làkk joolaa yàlla mu ne lu tax li taarafu ngir ngeen xamante maa taqale làkk yi ngir ngeen xamante boo ñëwee noo sant mu ne man baaji joolaa laa mu ne waaye séeréer baa ngi waaye jógal fi waaye yow nga ne joolaa mu ne way séeréer kal bi ñëw na ana mbokk gi dugg na kon yooyu yàlla moo ko def nañu góorgóorlu ci jaamu yàlla kon ñun tam ñu ngi taxaw fii di jëloon nañ suñu wàll di ñaanal yàlla waa dëkk bi rawatina mag ñi yàlla yàlla yokkal leen seen fan yi yokkal leen seen wér gi yaram njaboot gi yàlla leen yàlla tàggataat delloo leen ci lislaam jigéen yàlla leen yàlla yëgloo ne ëllëg ñooy nekk jigéen yi mag ñi yàlla tàggal leen ñëwaat ci diine yomb na yàlla yàlla nangul ñu suñu weeru koor nangul ñu jaamu yàlla yi noo ngi ñaan jàkk ji yàlla na ko yàlla def jàkki lislaam jàkk ji jàkku lislaam la waaye yàlla na ko yàlla gën a yokk ñu ngi koy ñaan di ko ñaan ci mbooloo mi di ñaanal itam imaam bi jàkk ji yàlla na ko yàlla gën a dëgër ndax li ñu ko yeen réy na lool waaye yàlla na ko yàlla sàmmal woyofal yeen bi ci kawam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina ma waaw tënk amul problème Bueno, alhamdulillahi rabbil alamin um, mbaɗi misimol eh, mbaɗi mbaɗi kolana kam moylal be o mi make kufoloti nan na foloti jan seejo kan kay sallinaɓe ɗum sallinaɗum ala ɗum dalanaɗa han sewo wona ɗum